waaw jërëjëf euh, bon boobu ba léegi ñu ngi ciy góorlu wax dëgg yàlla am na ci ay résultats yu am solo yoo xam ne yi depuis que président Macky Sall mi ngi ci réew mi bopp réew mi ba léegi euh, ci mbayum ceeb mi kam ñu ngi ciy yokk c'est vrai que aussi importation bi aussi am na solo ba léegi euh, waaye nag teg nañ ay projet yu bari yoo xam ne yi dina gën a yokkaat suñu suñu suñu production waaye boo seetloo président bi ñu defee gouvernement bu bees bi lam ñu digal mooy souveraineté alimentaire wax na ko démb ci conseil des ministres donc souveraineté alimentaire nag dafay terme bu am solo boo xam ne bii tey bu ñu ko bëggee jëfee il faut ñu gën a baral suñu loxo ci li ñu daan def ci ci ci wàllu ceeb parce que ci wàllu ceeb liñ ci def bari na waaye foo ñu yokk. il faut ñu il faut ñu am semence yu baax il faut mbay mi gëna a yaatu il faut que buñ bayé également ñu éviter li ñu perte ci ci ci biir tool yi il faut aussi ñu transformer parce que loolu moy ñëriñ bi donc chaîne bi yépp amu dara luñ ci wara bayyi pour que li ñuy def am ñëriñ donc loolu nak ci lañu nek président wax nañu ne nañ def stratégie dégg ngeen dem communiquer conseil des ministres bi dañ ko défal stratégie jox ko ko bu ñu paree ko ak nit ñi waaye am nañ yaakaar ne euh, ci li ñuy def ceeb bi daf ci bokk nak parce que du uniquement ceeb souveraineté alimentaire du ceeb rek donc lépp ngi ci ceeb a ngi ci mboq ngi ci euh, dugub a ngi ci basi mi ngi ci lépp a ngi ci euh, même les produits orticole lépp lu nekk ci la ci la bokk lépp loo xam ne dañ koy ko jëfandikoo rek ci la bokk donc bu ñu paree su danañ ko ko tegal mu ko approuvé pare ñu partagé ko ñu partagé ak yéen parce que nag il faut ñu ñu dem ci mais am nañ yaakaar déjà que Sénégal jafewul wax dëgg yàlla. am bu fekkente ne euh, moyens taxaw na am euh, souveraineté boobu parce que am nañu suuf am nañu ndox am ñu jàmbaar pour pour béy donc yaakaar naa ne euh, solution bi danañ ko war a mën a trouver facilement. ñu ngi ñu waaye dañu ñëwaat rek ci montant projet bi a jàppale producteurs waaw projet bi moom ñeen fukki milliards la ak ñett. bon li ëpp ci li muy intervenir mooy ci zone bi nga xam ne bii dañuy dañuy bay ceeb sukkandiku ci taw bi mooy riz pluvial waaye du yeneen aussi dina ci mën parce que léeg nga bay nga euh, aménage boo xam ne fii ñaar yëpp dinañ fi mën a am nga mën a bay ci noor bi mën a bay ci nawet bi Sénégal nag wax dëgg yàlla boo bëggee dégg-dëgg il faut ñu jàpp ne mbay moom mënuñ ko yemale ci ñetti weer wala ci ñeenti weer bu ñu bëggee dund dund ci li ñuy bayee il faut ñuy bay atam lëmb maanaam di bay noor di bay nawet mbayam noor dafa war a nekk réalité ci réew mi donc projet bi dana ci tenir compte parce que déjà mi ngi tàmbali ci semence yi euh, dem ci aménagement yi dem également ci ñu euh, euh, mu ci équipement yi parce que aménager wala nga bay des fois il faut des équipements mais également ci euh, récupération produit parce que bo bayee pareil aussi des fois donc ko mën récupère récupérer pour plusieurs raisons bo pareil aussi ñu transformer donc chaîne bépp nak buñ ko buñ ko topé euh dana ci njeexital bi ñu bëgg ci ceeb bi rek mais autosuffisance alimentaire wala souveraineté alimentaire du uniquement mbayam ceeb leneen lépp ci la bokk dugub ci la bokk ak yeneen yeneen yeneen produits donc vraiment projet bi essentiellement centre bi la ne ak sud bi mais également mi ngi ci nord bi parce que dégg ngeen déjà ñu wax ne am na magasin yu ñu war a def ci ci nord bi gis ngeen déjà ñi nga xam ne ñi commencé leen équiper en en en matériel notamment ay batteuses ak ay moissonneuses yëpp am na ci projet bi yaakaar na ne couvrir na pratiquement tout le Sénégal